waaw ndax ñu koy bàyyi. non coow face à face comme guerre te bëreeguñu. waaw mais tamit bon ñun am nañ fi ay kilifa muy waa CNG bi xam nga làmb ñun li wax ji ñuy wax yëpp wax yi ñuy wax yëpp fii métti ñëpp xam nañ ko fii métti ni faj. amul leen amul leen mu ko nëbbalee am nañ CNG mi ngi fi ñooy njiitu Modou Lo ñooy njiitu euh, Ama Balde ñooy njiitu Poisson ak keneen keneen góom bi fi mu nekk xam nañ ko nañ ko alcool faj ko. ah waa di face à bu dul am est-ce que bëri dana am. mais face à face tey jii képp koo xam ne da ngaa bëgg Ama Baldé ndax ndax Modou bu ko neexee tey jii mu résilier contrat am ne bëreetuma ak moom pertement Ama Baldé la képp koo xam ne da ngaa bëgg Ama Baldé loo war am loo war def ñëw soutenir Ama Baldé ci rek teggin mu bëri ak Modou Lo loolu loolu avantage am ndax moom lu mu am ci combat boobu rek avantage am la mooy mooy tey rek avantage la mais tey bu ñu ndax bu so dama lay dara lu wóor bu sotti amaatee mu yàqu mooy combat bi moom non genre contrat moom moo day xool leneen moom loolu moom source bu sûr la lu nit waxtaanee bañ pare la il faut nag waa Pikine ñu góorgóorlu ci loolu pour seen combat contrat xam kañ la mooy yàqu na mooy moo dina bëri jeg Bombardier fin de saison loolu moom dafa leer waaw